bureau de vote daara xuddoos mu soriwul dara université bi nga xam ne moom la ñuy tabax muy Madiyana jamono ji nag askan wi ku ca nekk votali ca bureau de vote yi ànd ci ak fulla gu mat sëkk ngir mottali seen devoir citoyen ñu ngi mobiliser suñuy kaar kaar yi ñu àndal yëpp ñuy ñëw di voté si normalement. bureau vote bii nag bëri na ñoo xam ne daal ñu ngi ciy voté. waaye ba léegi amagul benn jafe-jafe boo xam ne nemmeeku nañu ko ci askan bi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee di rafetlu lu mel di xam ne nii bii yoon kilifa yi seen matuwaay dëgg la ñu ci jël. Euh, alhamdulilahi rabbil alamin vraiment vote bi mu ngi déroulé normal amuñu benn jafe-jafe amul benn problème fi nekk nii mandataire yaa ngi sur place. kaar euh, yaa ngi dem di jëli nit ñi di ñëw di voté si massivement amul benn problème. vraiment fii moom gisuñu fi benn benn benn jafe-jafe boo xamante ni fi na nii mën nañ ko koo réclamer fi nekk nii. gannaaw loolu itam ñi nga xam ne ñoo nekkee foofee di ñaax askan bi nga xam ne ñoo nekkee ci kër yi jamono jii ngir ñu génn daal di voté ndaxte kat jàpp nañu ne mooy firndeel seen kàddu bi ñu am ci réewum Sénégal.